moo xam alxuraanul karim wala xam-xam ci bépp téere bu munti doon li ci gën a neex mooy oustaz Mouhamadou Konté yemul foofu yow mi am jàngoro bu munti doon oustaz Mouhamadou Konté moo ci aay ndoxum si sikki jàngoroy Kajoor hémorroïde faiblesse sexuelle yow mi góor mbaa ngi jigéen bëgg sa néegu sëy di neex dawal seeti oustaz Mouhamadou Konté ma nga nekkee géejuwaay rond-point dalal jàmm soo bëggee jokkoo ak moom defal ñu 70 796 24 89 wala nga def 77 330 17 58 oustaz Mouhamadou Konté daal faj aajo moo ci aay ñu door revue de presse bi dooree ko stade di yéenekaay ñetti doomi Amérique du Sud yi la journal bi fësal ca xët wu njëkk wa Pelé Maradona ba ca Lionel Messi surnal bi nag dafa sampo ab laaj ñetti ñi kan mooy yàllay football bi maanaam kan mooy jinne ji dàq football loolu la surnal bi sampo comme laaj yéen it ma leen koy laaj ci commentaire yi waaye journal bi yemut ci laaj ko képp dafa laaj ñoo xam ne seen xam-xam màcc na ci wàllu football ki njëkk wax moom nee na Pelé moo dàq football ci àdduna bi keneen ki nee na Maradona mënoon na football waaye dafa am fu mu yemoon ndax dafa am loo xam ne daan na ko jëfandikoo keneen ki nee na Lionel Messi moom ci wàllu trophée maanaam jël ay coupe amu ci morom te football tamit Lionel Messi mën na ko lool kon ñett ñi bokk nañu ci ñi dàq football ci àdduna loolu la journal bi xamle ma leen koy laaj yéen it ci commentaire yi ngeen wax ñett ñi kan moo ci dàq football journal bi tamit ñëw na ci Premier League bi Boxing Day nak day am altine incha allah ñoo ngi xaar match yu nar a tàng jër mën nañu caa lim ford ak Tottenham match boobu altine midi et demi lay commencé Crystal Palace war a jàkkaarloo ak Fulham match boobu 15h la Everton war a jàkkaarloo ak Wolverhampton match boobu tamit 15h la Leicester Newcastle boobu tamit match du ko dàq quinze heures la Liverpool Aston Villa match boobu tamit dix-sept lay door waaye bu ñu demee ba vingt heures jot Arsenal mooy dalal West Ham match boobu tamit match du ko dàq match yooyu yëpp nag altine incha allah lay am. journal bi tamit fàttewul Ligue 1 bu Sénégal tey jii nag dinañu xaar match yu neex bokk na ci la Linguère de Saint-Louis ak Sinéwor AS Pikine war a jàkkaarloo ak Stade de Mbour match yooyee tey jii la altine nag la ñuy xaar match yi nar a dàq ci Ligue bu Sénégal. Sénégal Tëngéej mooy dalal Géejawaay football club Casa Sport di dalal jaraaf match yooyee lëndi la soxal Ligue 1 bu Sénégal ñu jugee stade yéenekaay dem groupe Futur Média fek fa record yéenekaay Idrissa Gana Gueye la journal bi fësal ca xët wu njëkk wa waaye doomu Sénégal yi nekk ca Angleterre googee la sournal bi di wax ak rawatina Idrissa Gana Gueye ñoom altine dañuy football boxing day ka ñuy jàkkaarlool moo di Wolverhampton waa Everton ànd ak Idrissa Gana Gueye li leen war ca match boobee moo di am ndam ngir defar seen toogaay ca Premier League ba bu dee Nampalys Mendy ànd ak waa Leicester ñoom Newcastle la ñu war a jàkkaar li ñu bëgg ñoom waa ànd ak doomu Sénégal bi moo di am ca match boobee bu dee ca championship ba ñoom it dañuy amal boxing bu dee Iliman moom li mu bëgg moo di dugal fukkeelu bitam ak clubam ci saison bi ñu nekk bu dee Ismaïla Sarr moom li mu bëgg moo di ànd ak waa Watford am ndam ngir mën a yéegaat ca kaw kon doomu Sénégal yi ñoo ngi leen di xaar altine ca Angleterre waaye journal bi tamit ñëw na ci Coupe d'Afrique UV bi maanaam gone yi nga xam ne ñaar fukki at lañu am coupe d'Afrique bi nag ma ngay amee ci réew Égypte Sénégal xam na ci ban poule la nekk muy poule A nekk fa ak Égypte mi dalo yëf yi Nigéria ak Mozambique kon nañu ñaanal équipe nationale bu Sénégal dem ca coupe d'Afrique boobee am fa ay ndam yu bari jël coupe bi indi ko fii ci réew mi. jugee Sénégal wutali France fekk fa l'équipe Payet le journal bi fësal ca xët wu njëkk woo Payet de Noël la ko tuddee Payet mii ñu gis nag Payetu Noël la li ko waral moo kat moom ak kii tàggat club ba mu nekk di Marseille seen diggante rataxul lool loolu tax na bi saison bi dooree ak tey jii li muy football bariwul waaye jamono ji nag ca entraînement ya ma ngay doxal ma ngay paas gaañ yi ñuy dugal ma ngay dugal ay bit yu doy waar kon bu ñu dooraatee championnat bi mën na am wërsëg bu yaatu di doxal ca Marseille googee comme ni ñu ko xamee woon ndax balaa yàgg Ligue boobe dina ñu ko dooraat ci lu matul ayu bés rek dinañu dooraat Ligue 1 boobee waaye Payet France ma ya loolu la surnal bii di xam xamle ñu jugee France wutali Londres Angleterre fekk fa Mirror Sport Calvin Phillips le journal bi fësal ca xët wu njëkk wa mu feggoo ak ci koy tàggat di Pep Guardiola laaj nañu ko nag ci ñàkk footballam keroog bi ñuy jàkkaarloo ak Liverpool waaye Pep Guardiola becci na kàdduy dëggam nee na Calvin Phillips de li tax footballul moo di jamono ji nekkul à cent pour cent te nag dafa jël poids loolu moo tax football lu wuma ko ci fàttali moom nag dafa amoon blessure bu yàgg yàgg waaye demoon na ca coupe du monde ba ànd ak réewam di Angleterre ba mu jugee ca coupe du monde ba nag ak tey jii entraîné wut wala li mu noppalu dafa bari dafa jël poids bu bari loolu moo tax football lowuma ko te su bëggee footballaat ci club bi nag faaw mu liggéey lu rëy ndax jamono ji nag dafa am poids te nekkul à cent pour cent nag jour bu mag la bis bu noppee rek dinaa ko football loo garjo Guardiola moo yëkkati kàddu yooyu dénk ko waa Mirror Sport Unai Emery mi tàggat Aston Villa tamit moo ngi ci journal bi moom nag ci champion du monde bii di Emiliano Martinez ci lay wax xam ngeen ne Emiliano Martinez mooy góolul Argentine waaye mooy góolu tamit ci Aston Villa nee na nag su ñëwee dinaa toog ak moom ñu waxtaan. ndax man ni muy doxalee neexuma te waa club bi tamit neexu leen maanaam moom bu defee jaloore ci kàng yi wala équipe dugal ni muy def noonu neexuma kon nag man su ñëwee dinañu toog ñu waxtaan mu soppi ko ca arsantine moom lu ko neex mën na koo def waaye club bii may tàggat di Aston Villa dafa am sart yoo xam ne moom lañ fi tënk te loolee kenn du ko jalgati. nataal bii ngeen di gis wala photo bii ngeen di gis Emiliano Martinez def loolu moo neexul Unai Emery te nee na lii nag du am ca Aston Villa googee su ñëwee dinaa toog waxtaan ak moom. ñu jugee Londres Angleterre wutali Espagne wàcc Madrid fekk fa Marca yéenekaay Alcaraz la surnal bi fësal ca wu njëkk wa waaye journal bi fàttewul football bi ñaari ñaari club yi gën a mag ca Espagne googee xam nañu ku ñuy jàkkaar lool ca seizième de finale ya soxal coupe du roi bu dee waa Real de Madrid ñoom CD Cacereño la ñuy jàkkaar lool match aller képp la nag amul retour bu dee waa Barcelone ñoom Inter City la ñuy jàkkaar lool kon ñaari club yi gën a mag ca Espagne xam nañu ku ñuy jàkkaar lool ca seizième de finale coupe du roi ba waaye match aller képp la amul retour kon ku ñu dóor da ngay toog Toni Kroos mi ngi ci journal bi moom nag bu ñu yeggee ci weeru février ci lay létt waa Real de firi leen wax ci ëllëgëm dina wax waa Real de Madrid day bàyyi football wala day yokk contrat am doxal ca club boobee waaye Toni Kroos moom ndogal li mu jël moo di su contrat am jeexee ci Real de Madrid su fekkee day bàyyi football du dem ci beneen club day tekki godaas yi bàyyi nee na nag su ko doole mayee mu wéyal dina wéyal ci Real de Madrid waaye loole nag bu ñu yeggee ci weeru février la ñu cay xam lu leer bu ñu sukkandikoo ci Marca yéenekaay ñu jugee Marca yéenekaay jël AS yéenekaay de la Fuente le journal bi fësal ca xët wu njëkk wa kii nag mooy tàggat équipe nationale bu Espagne tey journal bi da koo dalal ñu séq waxtaan bu yaatu nee na équipe national bi nag dina am ay gan naam am na jour yu baax yu mën lool la ñuy def waaye faw mu am ay gan yoo xam ne dinañu ñëw jàppale ñu wax na tamit ci Serge Busquets mi nga xam ne tekki na godaas yi nee na waxtaan naa ak moom ne ko toogal ñu liggéey waaye moom ndogal li mu jël moo di tekki godaas yi bàyyi ci équipe nationale bu Espagne loolu nag gën a lu ma woon waaye bëgg-bëggam wax na tamit ci Sergio Ramos nee na Ramos nag tëjalu ma ko bunt buntu yi bu doxalee nekk à cent pour cent dinaa ko woo ngir ñu liggéey ci équipe nationale bi Luis de la Fuente moo yëkkati kàddu yooyu président wu Real de Madrid bi tamit moo ngi ci journal bi di Florentino Pérez démb nag dafa jàkkaar la woon ak fans yi moom ak Karim Moustapha Benzema di wax ak ñi nga xam ne ñoo bëgg Real de Madrid googee dig na leen nag ne leen équipe bi moo ngi fi te li bëgg moo di ren ji ñu jël ay coupe waxul benn de nee na ay coupe la bëgg équipe bi jël Santander ak Ligue des champions Florentino Pérez moo yëkkati kàddu yooyu feggoo woon ca waxtaan ba ak capitaine bi di Karim Moustapha Benzema. ñu jugee Madrid wutali Barcelone fekk fa esport Xavi mi tàggat Barcelone le journal bi fësal ca xët wu njëkk wa ñii de kenn du leen laal ca club boobee di Barcelone muy juróom benn yi may waaj a lim Robert Lewandowski moo nekk ca bopp ba kenn du ko laal ci club bi nga xam ne Xavi moo len di tàggat yeneen juróom yi moo nekk nii Gavi Araujo Pedri Ansu Fati Jules Koundé juróom yii daal kenn du leen laal ca club boobee di Barcelone file ak ñoo ngi wér dañuy dugg ci terrain bi doxal ànd ak chafi mi di tàggat te ñoom ñii ñëpp kat seeni clause la ca nekk kenn ku ne ci ñoom moo di un milliard d'euros kon ñii kenn du leen laal ca Barcelone googee waaye Robert Lewandowski mi nga xam ne dañu ko ajoon ñetti match ne du football li ko waral moo di carton rouge bi nga xam ne amoon na ko bi loolu amee nag ba noppi waa Barcelone defoon nañu appel maanaam ñaan ñu wàññi ñetti match yooyu yàlla nag génn na wàññiwuñu ca dara ñetti mat match yépp la Robert Lewandowski di toog kon ñetti match yi di ñëw soxal Liga Santander Robert Lewandowski du fa nekk ngir jàppale waa Barcelone ndax ñetti match yi waa tàdd wàññiwuñu ca dara Barcelone googee sax seen latéral droite bi dañoo bëgg a yokk doole ji ñaar ñii nag ñoo ngi leen di bàyyi xel muy Pavard di football ca Bayern de Munich ak Meunier nekk ca dort Dortmund ñaar ñii waa Barcelone dañu leen bëgg ngir jënd ci ñoom kenn yóbbu ko ca wetu ndijoor ga ga mu jàppale leen loolu la journal bii di sport xamle ñu jugee sport jël Mundo Deportivo Xavi la journal bi fësal ca xët wu njëkk wa ay ndëgg sërëx yu bees tàq la ngir Liga Santander bi jamono ji entraînement yi day tàng jër te waa Barcelone ña ngay liggéey lu métti ngir bu ñu dooraatee championnat bi ñu doxal jamono ji ñoo ngi koy wane ca entraînement yi entraînement yi day tàng jër te dañuy amal ay match yoo xam ne ci seen biir la day tàng jër ngir waajal Liga Santander bi te jamono xelu waa Barcelone dal na ndax ñoo jël pee jamono jii daal képp koo xam ne Barcelone war naa jàkkaarloo ak yow na nga ko waajal ndax gone Xavi yi noppi nañu loolu la journal bi xamle te noppi nañu tamit ngir jàkkaarloo ak Espagnol de Barcelone loolee derbi la ñaar ñoo bokk Barcelone googee le 30 décembre nag la ñuy jàkkaarloo mu soxal Liga Santander ñu jugee Espagne wutali Italie wàcc Rome fekk fa Corriere dello Sport njàqare ak tiitaange moo am ca Serie A ak ca Serie B bëree ba série A nag moo di première division série A mooy deuxième division li ko waral moo di yuufe googee xam ngeen ne dañoo nekk ci ay jafe-jafe président ba ak ñi mu àndaloon ci liggéey bi ñëpp dañoo xëy rek démissionné bi mu amee nag ñi ëmb football bi ci itali googee nee nañu lii du jàmm dugg nañu nag di ko càmbar càmbar googee nag laal na club yu bëri yoo xam ne ca Italie la ñu nekk club bu ñu naan Empoli ak Sampdoria da leen laal te am na juróom benn yoo xam ne ci Italie googee la ñu nekk Série A ak Série B dañu leen laal kon jamono ji nag njàqare ak tiitaange moo am ca série A ba ak ca série soxal l'enquête bi nga xam ne ñoo ngi koy amal jamono ji ci yuufe waaye waa Napoli tamit ñoo ngi ci journal bi journal bi nee na leen ku ko mën a jàpp ñëwal Napoli ma nga ca kanam ndax jamono jii juróom-ñetti poñ moo dox ci digganteem ak ki topp ci moom ngir jël série A boobee nee na leen nag AC Milan Inter Juve ñëw leen ngeen topp ko ndax Napoli jamono ji kenn mënu koo jàpp ndax ña ngay doxal ànd ak Spalletti mi leen di tàggat. ñu jugee Corriere dello Sport dem Torino fekk fa Tuttosport waa Juve le journal bi fësal ca wu njëkk wa fête Noël yii de dina neex ci waa Juve ndax li ñu bëgg moo di bu ñu yeggee ci la vingt six décembre ñu am club bu bees tàq am président bu bees tàq ginnaaw ba ña fa nekk démissionné li ñu bëgg moo di. conseil d'administration bu bees tàq le 26 décembre la ñu bëgg a taxawalaat beneen équipe bu bees tàq président bi ak ñamuy muy ànd ak ca liggéey ba muy club boobee di yuufe seen gone gii di Federico Chiesa ñoo ngi koy xaar moom mu dooraat entraînement yi ànd ak doomu Brésil yi nga xam ne demoon nañu ca coupe du monde ba mën nañu caa lim Danilo Bremer ak Alexandro ñoo ngi leen di xaar la le 27 ngir ñu ñibbisi ca yuufe googee dooraat entraînement yi nga xam ne bu championnat bi dooraatoo doxal ànd ak club boobee di Juve loolu la journal bi xamle. ñu jugee Torino wutali Milan fekk fa gaseta dello Sport doomu Belgique bi di Romelu Lukaku la journal bi fësal ca wu njëkk wa moom nag li mu xamal waa Inter moo di fowul foluwut te noppi na li mu bëgg moo di football nee na feetu Noël yi sax bu nit ñi du noppalu moom du noppalu day tàggat yaram bi ngir waajal maanaam day entraîner ngir waajal door gi ñu war a dooraat série A boobe li mu bëgg Inzaghi mi koy tàggat bëgg ko moo di bu ñuy jàkkaarloo ak Napoli la 4 janvier mun nekk à 100 pour cent mën a doxal ca boobe boobee football 90 minutes muy Romelu Lukaku jamono ji nag nee na fawut Folwood Sassi tamit moo ngi ci journal bi moom nag nekkoon na ay jamono coach su Inter ak réew moome di itali mooy artuwaa séri A bi gépp nag di wax ci Juve nañu nee na nañu bàyyi xel Juve ndax Juve ji nag mën naa bett ñëpp bu ñu dooraatee séri A bi ndax Juve jamono ji noppi na gaa ñi ne ko lu tax mu ne Rabiot mi ngi doxal te sa tamit wér na léegi mu nekk à cent pour cent kon club yi nga xam ne ñooy xëccoo ak Juve Serie A bi nañu ko bàyyi xel ndax Juve